balaa àggalee xëgg ak weex mu ne ko tàll bu tubaab yi nee dafa ñuu balaa àgg ci lëga mu ne ko kukk kukk kukk Sénégal moo raw ci àdduna bi ci signature de traité li ëpp ci traité yi Nations Unies def Sénégal signé nañ ko Sénégal ratifié la te li ci gën a metti te gën cee metti mooy Sénégal daanaka daanaka daanaka sañes naa wax ni du def réserve moom day indi mu ni ah indi leen ma naan rek lii ko seet la mu ni bàyyi rek mën naa jox sama askan ñu naan bu ñu faatoo nag mu ni sama yoon nekku ci yow daal tubaab bi li nga bëgg moom naa koy def rek déem a gërëm rek fii la Sénégal te xam ngeen li bu ngeen demee ci constitution moo tax ñun li ñuy wax lu ñu leer la c'est très technique te bañ tàmbalee ba léegi amul kenn ku mën a contester li ñuy wax ni dem leen ci article 98 bu constitution bi lan la wax mooy Sénégal bu signé ab traité walla convention bu ñëwee ci réew mi ba ñu yóbbu ko ca ngombalaan nga ñu ratifié ko bu ñu ko génnee ci journal officiel dafay doon une loi supranationale dafay tiim loi yi mu fekkoon ci réew mi mais c'est extrêmement grave ce qui veut dire que ni réew mi nañu wóor ni mën nañoo tas sax assemblée nationale jaratu ndax traité bu Sénégal signé buñ ko jaaralee fi ñu ko war a jaaralee muy tiim loi yi mu fekkoon ci réew mi nga xam ni kon il faut ñu soppal ñi loi bi mu fekkoon ci réew mi moom la ñuy wax harmonisation yemu ci loolu ba tey ëppee wu 2018 gis nañ ci Sénégal waxit ni mbirum góor jigéen du déli Sénégal te amul benn benn benn poursuite judiciaire boo xam ni teg nañ ko topp koo xam ni nit la te loolu rek a taxoon mu def kon nag ginnaaw bi nga xamante ni Sénégal résolution bi nga xam ni mooy résolution bi ñu waxoon sax consacré ay droits nouveaux depuis 2011 ak bi mu ratifié tamit le protocole de Maputo ci 2005. deseetu ko woon dara moom Sénégal lu dul nag jéem a seet yan xàll ak yoon la mën a jaar ba duut duutal fi mbir mii Nations Unies bëgg ci loo xam ne askan wi du ko xam jaare ko ci par exemple la SNEC 2 SNEC 2 soxlawul ma ciy taxaw ñëpp xam ngeen vision bi xam na ni mille vingt 2026 mooy Sénégal bu fi kenn boddeeti kenn imam beeg góor jigéen beeg ñëppay bokk yem àq ak yelleef ci biir réew mi waaye jame ko it ci njàng mi ak njàngale mi ci daara yi muy lan les principes directeur internationaux sur l'éducation complète à la sexualité boo xam ne UNESCO moo ko porté te Sénégal waxtaane nañ ko ba tënk lañu tënk fi mu nekk nii di ko war a tabbal ci biir njàng mi ak école yi ba semaine bii ñu génn rek Médina Yoro Fula def nañ fa séminaire boo xam ni ñoo ngi doon waajal lii yemul ci loolu ñu ni buñ jaaree ci njàng meeg njàngale bi état bi di ko doxal itam nañu fexe itam ba ñu dugal ci parlementaires yi à travers le PGA PGA boobu assemblée nationale bu Sénégal bokk na ci 143 pays ci àdduna bi ñoo ci bokk assemblée Sénégal bokk na ci ay député sénégalais ñoo ngi ciy liggéey te lan lañ leen di liggéeyloo nañu fexe ba waajal ay yoon yoo xam ni disposition buy xañ nit ki àqam ak yelleef ci wàllu orientation sexuelle et identité de genre nañ fexe ñu supprimer ko nañu fexe ba waajal ay loi yoo xam ni tamit daf koy légalisé kon ñoom ñoo ngi ci perspective yoo xam ni yu leex la nañu fexe itam ba seen parti politique yi nañu def citoyen bi ci war góor jigéen ñi sans ñu déclarer ko nañ fexe nañ nekk ci instance yi nañu fexe itamit ba nañu doon ay candidat ci municipal yi candidat ci assemblée waaye nañu fexe ba jàppale góor jigéen ñi ñu jiite réew mi aussi li may wax c'est inscrit dans un document officiel assemblée nationale bu Sénégal mi ngi ciy liggéey ay députés sénégalais ñoo ciy liggéey y a plus de quatorze dans le monde yu ciy liggéey yamul ci loolu am na lu ñuy wax l'autre cercle le milieu du travail gars yi liggéey milieu professionnel bi ñu nii tamit nañu créer benn cadre boo xam ni ñoomi danañ liggéey ci suuf ci biir société yi ba fexe ba inclusion góor jigéen yi tamit mën a am yemul ci loolu he for she benn mbootaay la boo xam ni ONU Femmes ñoo ko taxawal ak yeneen bànqaas yu bari mooy he c'est de ku góor ki nekkal jigéen ki seen yitte mooy l'avancée positive et la représentation des LGBT gis ngeen émeutes yi amoon fii mois de mars Sénégal ba fukki sénégalais ak nangam faatu ci keroog bi président di jël kàddu di wax ak askan wi pins bu xiifoo si la takk ci fii. nga xam ni communication bi ñaar la woon. day wax ak sénégalais yi di wax ak góor jigéen yi aussi ak Nations Unies. loolu ñëpp gis nañ ko mën naa leen a wanaat image fii ngeen gis ko aussi. Hmm. kon loolu tamit mi ngi dox ci réew mi ak yeneen yoo xam ne su ma ko toppee fi laay yendu ngir lan jiw bi nga xam ni moo jëm ci orientation sexuelle et identité de genre ñu ji ko ci biir réew mi jaar ci ay pàcc ak i fànn yu wuute yu bari ngir roose ko ndox moo xam ni ci askan wi lay jóge te fekk na askan wi bëgg ko ngir yaatal ko fi. ngir fi yokk xëñ na juróomi at fukki at ñaar fukk amaana ba ba ngay xam ni dana mën a nekk ñu def ko fi na muy amee ca tugal na muy amee États-Unis na muy amee Canada loolu moo waral mbokk yi ngeen war a xam ni Sénégal bu ngeen ci déggee li mu waxoon ni dépénalisation homosexualité li ma wax ba tey ci ëpp e EPU la nekk mbir la mu complexe mbir la mu doy waar Sénégal dafa laaj ngeen may ñu temps kii laaj temps xam na ni tey tey tey mënta nekk waaye faw ñu may ko ak neggandiku ngir mu liggéey ci ba ëllëg mu man a am nee na laaj na tamit ab gëstu akub liggéey akub xóotal une étude minutieuse ndax Sénégal dafa am ay particularités sociologie dellu leen ci EPU bi tamit dangeen ko ci fekk lii la Sénégal la kon leer na ni état bu senegal mi ngi liggéey ci agenda bu dëppoowul ak bëgg-bëggu sénégalais ak seen gëm-gëm ci yegg sax bay mel ni dafay suufeel ndono li nga xam ne amoon nañ ko ak mbaax gi réew mii ñëpp xamee ñu lii lépp nag ku ko xool ba seetlu ko danga xam ni sikki sàkk waratu am te ñoom ñi ñuy waxal mësu leen a dégg ku dellusiwaat ci discours bii ni ñu ñoom li ñuy wax du noonu dañ ay politiciens lañu. Mm-hmm. ay islamistes lañu. ay barbi lañu ay nangam. waa ji ni ah réew mi nañu waxtaanee ñu ne eh, mais ki koy wax kan la ki koy wax amul solo. Mm-hmm. li muy wax moo am solo. réew yi ñoo commencé bopp. ñun ñu ngi déglu ñëpp kon gis ngeen ni duñu wax ci question de fond bi waaye di koy wax de li na tam ñaaw yii ak yu demee noonu ñun ay détails ku ñu ci woowee duñ la ci wuyu parce que li ñuy wax xam nañ ni mooy li am kon nag ñoom juróom-ñeent ñii de li ñu def wasaare wuñ ko sax ci mbooleem groupe Benno Bokk Yaakaar ñëpp ndax wax naa ko sànq bari na ci ay député yu nekk ci ñoom yoo xam ne ñoo ngi liggéey ñun ci mbir mi te am na ay député yu bokk ci ñoom ñoo xam ni bokk nañ si ñu porté proposition de loi bi kon li ñuy wax maasale wuñ ko ci ñoom ñëpp waaye terewul nag ñu wax sénégalais yi ni leen ndax jotul ñu seetluwaat gis-gis bi ñu amoon ci suñu ngomblaan gii wala boog sunu ndaw yi nga xam ne ñoo leen di tànn ñu ay député ndax jotul ci ñu xoolaat ko kon. ba Sénégal jotee indépendance ba léegi lii mooy li mas a am pouvoir législatif bu jébbal boppam pouvoir exécutif kon duñu dog mukk bu mu njaam duñu dakkal mukk colonisation ak néocolonialisme ak yeneen xeeti nooteel yi nga xam ne yu bees la wala yu yees la fii yëpp amuñu ngomblaan wala assemblée nationale boo xam ni ay sénégalais yoo xam ni ay jigéen la ñuy doon yu takku ay jigéen yoo xam ni Sénégal moo leen di gënal seen jëmm ak seen lépp ay jigéen ñoo xam ni am nañu ngëm-ngëm te ci principe lañuy ñuy dox ay jigéen ñoo xam ni askan wi ak yittey askan wi moo leen di gënal seen bopp ak seen yittey bopp. naka noonu ay góor ñu taxaw ci taxawaay boobu mën a taxawal dignement ak aska askanu Sénégal criminalisation bi nga xam ni moom lañu doon wax homosexualité ak dakkal bi nga xam ni ñoo ngi koy feddliwaat ci agenda bii lañ ko taxawal ndax ci turu sénégalais yi lañ koy doxal te ñi koy defit di nëbbatu xam nañ ni dafa mel ni sénégalais yéen ko demandé ñu koy def ci seen tur ko te demewul noonu kon loolu tamit nañ ko dakkal waaye ginnaaw ñaar yooyu ànd sàmm jikko yi du musul nopp tant que dëgg-dëgg buum yi nga xam ni moo tënk sénégalais yi tënk africains yi buum yooyu yépp daggu loolu. ci loolu ànd sàmm jikko yi. mi ngi yëgle ni ñaar fukki fan ci weeru février bi ñu jëm danañ def rassemblement boo xam ni rassemblement national lay doon bu mag ñu dajale Sénégal yépp li nu yoon may ñu jël wane ni ànduñu ci lii te duñ ci ànd te danañ taxaw temm ci askan wi ñu respecté ndax askan wi kenn ku ci nekk ci maa tey njombe tooñ gi nga xam ni si juróom-ñeenti nit ñoo ko def juróom-ñeent yi kaay yi leen naa ko jàng ma liir leen juróom-ñeent ñi nga xam ni mooy juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoom ñoo jël ab dogal ni sunu xalif généraux yi ay citoyen ordinaire lañu dañ ko doon dégg waaye ñoom jëf nañ ko Moustapha Niass moo ca jiitu Cheikh Tidiane Gadio wax dëgg man personnellement mu mu ci gën a bett ndax jàppoon naa ni ku gëm ay valeurs africaines la Ndeye Lucie Cissé Daouda Dia ay maire ñi moom bettul kenn ndax bi loi bi duggee rek moom la daal di def ab communiqué Abdou Mbow Ndeye Siré njaay foog naa moo dëkk Mbour Aïssatou Sow Diawara moom seeti war nañ ko nañ ko coordinateur départemental bu Guédiawaye gi nii def nañ délégation dem fa mu assuré ñu ni loi bi moom maa ngi taxaw di ko xaar mbootaay gi ma yor bu ñuy ñëw rek léppay jàll laa ak Aliou ñii ñooy juróom-ñeent ñeent ñi nga xam ni ñoo jàpp ni askanu Sénégal tekkiwuñu dara te seeni kilifa yi tamit seen kàddu tekkiwul dara seen signature yi tamit amul benn valeur waaye gis ngeen ni lii am na fa ko sénégalais yi teg bërki démb lañu demoon ci ab jongante muy élection locale yi man de waxuma ko waaye déglu naa ñu baree bare baree bari ñoo xam ne ay nee nañ ay analyste lañu dañuy jàngat ñoom def nañu ab jàngat liyee nañu fi mu nekk nii défaite bi nga xam ni ñi rejeté proposition de loi bi fa lañ féete am nañ ko ak recul bi ak ñi leen askan wi sanctionné ñoom lëkkale nañ ko ak delloo gi ñu delloo ginnaaw proposition de loi bi ak nañ ko bloqué ah bu fekkente ni. askan wi ñoo moom réew mi tànn seeni ndaw ni lii lañu bëgg ngeen defal ñu am soxla ni leen dañoo bëgg li ñun leen yéen seen soxla amul solo ah nga wëlbati ko ni ko man it dama laa soxla moom it bu ko neexee ne la yow it sa soxla amul ma ko solo tant que nag ñi ñuy tànn ci biir réew mi ñoo ngi continuer di wéy di sobantal yittey askan wi ak di ko doyaral na nañu xam ni tamit askan wi dana doyadal seeni soxla te dana ko it xeex bi deful lu dul lay soog a tàmbali liñ ci war a taxawe yëpp yëpp yëpp danañ ko taxawe am na ci loo xam ni mënees na ko wax waaye am na loo xam ni deesu ko wax te ñoo ci liggéey te ñoom xam na ne ñoom xam nañ ne xam nañu ñoom it xam na ne ñun xam nañu li nu bokk ku ci ne da cee am cër jigéen ñi am nañ ci seen cër ndaw ñi am nañ ko ci góor ñi dañ ko ci am boo sacré bi dafa am cër ci réew mi jàngu bi dañ ko fi am diine l'islam ji majoritaire it daf ko ci am kon kenn ku ci nekk cëram bi mu am loola daf ko war a jël ba mu mat sëkk te kenn bañ a tooñ kenn te gis na ni ñi fi majoritaire moom dañ leen a tooñ